mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala julli ci yenent bi rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam ñu bokk sant yàlla buur bi ñu xéewalal xéewal ya nekk fa moom duñu xaaj duñu jeex nelaw bañ doon jëfandikoo démb ñun doon waxtaan ak yéen bokk na ci xéewal ya yàlla yénkeewal doomu aadama bi mooy xéwalu nelaw jaayu ko ko lebbu ko ko sant ko dara la tax mu di ko ko def lu dut mbaax ba mu baax ci doomu aadama bi moo tax buur yàlla daldi ko may jagleel ko xéwal ba toll ni xéwalu nelaw bu dee dañ ko doon jaay ña ñàkk kenn du ko mën a jënd bu dee dañ ko doon jox ngir liggéey ngay def ngir jot si boroom doole ñëw si jot kon képp ko amul doole képp ko amul kàttan doo mun a jot ci nelaw waaye daal yàlla def ko mu doon xéewal boo xamante ne ñépp si bokk yem subhaanahu wa kon yonent bi nee na képp ko jëfandikoo xéewal bu xéewalu nelaw boo ci noppee la nga war a ñaan sa borom mooy danga war a wax ne alhamdulillahi alladi axyaana baadama amatana wa ilayhi nushur mboorum xeetu cant yu kawe yi mboorum xeetu cant yu mattale yi ñeel nañu yàlla ndax yàlla mooy buur bi nga xamante ne moo ma delloo sama ruux gannaaw bu mu nammee ci sama jëmm ji dee bu ndaw te mooy faatu waaye nag ah wa ilayhi nushur bu ñu jeexalee dund bi ci moom yàlla lañuy dellu subhaanahu wa ñu ne nelaw boobu noonu nag jullit bi jëfandikoo waxtu su néew ci ginnaaw ba tax mu ñaan ñaan bi ñu ne laata muy suubu ci nelaw boobu dafa am la mu war a jëfandikoo ñu ne jëfandikookaay boobu doy na rekk ñu tegtal ci ñaar ba ñett tegtal nga xamante ne jullit bi loolu la war a jëfandikoo jamono bu muy waaj a dugg ci nelaw ñu ne mooy na jàpp bu julee ñaari rakkaa baax na bu julee safak witar baax na bu dee jàpp na te julliwul sax baax na waaw waaye lu gën mooy na jàpp ba noppi julli safak witar lim ci mën a teg ci ay xeetu nawaafil na ko ci teg bu ci munta teg dara tamit na julli safa ak witr premier rakka bi na jàng sabisma rabbikal aala ñaareelu rakka bi na jàng qul ya kaafiruun mu daal di silmal mooy julli safa witr bi ñu ne na julli benn rakka na jàng fatiha jàng ixlaas mu daldi di sigg wala mu jàng fatiha jàng ixlaas jàng falaq ak naasi waaw su ko defee mu julli benn rakka bu ci noppe mu daldi ñaan yàlla soxlam bu demee bay waaja sangu malaanam walla mbàjjam fekk mu ngi toog fa mu war tëdd mu daldi jàng ayatul kursi bu ko defee di allahu la ilaha illa huwa alxayyul qayyum bi keroog aaya bi di jeex su ko defee ñu ne bu àggee foofu bu jeexalee ñaan bi mu daldi jël lépp loo xamante ne war naa war a mën a àgg ci yaramam mu daldi di jëfandikoo loolee mu daal di ko raay ci yaramam ci anam bi nga xamante ne noonu lañ ko jàngale te noonu la ko yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa léegi bu fekkente ne jullit bi def na ni mu daldi di géem raay lépp li nga xamante ne loxo bi mën naa jot ci ginnaawam mu daldi raay ayatul kursi boobu ci yaramam waaye bu ci noppee na wax ne bismika allahumma amutu wa ahya na ñaan yàlla suñu boroom ci sa tur yu matale ci sa tur yu sell bi ci sa tur yu mag yi ci lay làqu bu ma faatoo ak bu ma dunde kon jullit baa ngi ni làqu na fa yàlla sàkku na fa yàlla ngir buur yàlla lakk ko fu yàq yeggul kon kooku mooy ki jébbal boppam ci karaange buur yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ndax kooku mooy doon suubu ci nelaw mu jébbal boppam fa boromam ba tax ne mu ne boromam bismika allahumma amutu wa ahya yàlla maa ngi làqu ci sa tur yu matalay maa ngi làqu ci sa tur am kaaraange yi maa ngi làqu ci sa tur yu kawe yi bu ma dundee yàlla nga ma continuer de aar waaye bu ma desee ci nelaw bi tamit yàlla nga ma yërëm ci sa malaanub yërmande ba ngay yërëm sa jaam yi kon ñu ne doomu aadama bi mooy ki jébbal boppam fa boromam subhaanahu wa taala yi képp ku nelawee nii yonent bi nee na boo jógee na nga ñaan alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amatana wa ilayhi nushur su ko defee nelaw bi ak yeewute ci nelaw bi ñu bindal la ko yiw ngay épargnel sa bopp ay yiw yoo xamante ne ci nu suubu ci nelaw comme naka yonent bi jàngale fa ngay faggoo yiw yu ni waaye boo yeewoo ci nelaw yaa ngi fàggul sa bopp yiw bu toll ni na yonent bi sant ne nii la jullit bi war a yeewoo ci nelaw su ko defee boo dikkee nii ba keroog yàlla di la jëlee si kaw suuf si xawma kan de waaye épargnel nga sa bopp yiw woo xamante ne bu la nit ñi ñaanalul bu la ko yàlla nangulee loolu rekk war na laa mën a wéttal ci sa teraayu bàmmeel ba keroog bés penc moo tax démb ñu ngi doon waxtaan ak yéen bur yàlla mu di ñu wax ne na ngeen xam ne man yàlla maa fi nekk di yàlla su ko defee na ngeen jéggalul seeni bàkkaar mooy waxtaanu démb bi fa alam annahu laa ilaha illa allah wastaxfiru tey incha allah ndéem sob na suñu boroom ba léegi ci buntu xam-xam bi nga xamante ne buur yàlla dafa jël xam-xam jox ko dayo jox ko valeur ñun doon waxtaan ak yéen ne yonentu bi nee na yonent yi fi yàlla yónni boroom xam-xam yi ñoo leen wuutu ci kaw suuf si ba tax na yonent yooyu bokk na ci ña yàlla wax yonent bi ne ba léegi ñoom yonent yooyu keroog ba xuloo tàng jaaree seen digganteeg seeni xeet ci ñamaleen yónni dañoo jël xam-xam ba ñu xam ne man yàlla ma leen yónni ñu delloo ma ko man yàlla ñu def ma ma doon seede ne ca dëgg dëgg dëgg ah xeet bi gëmuñu ma xeet ba ñu yàlla yónni gëmuñu ñu dañ ñoo weddi waaye yàlla xam na ni daal ñun ay ndawam lañu gis nga ñoom dañoo jël xam-xam ba ñu xam ne yàlla leen yónni ñu jël xam-xam boobu delloo ko fa yàlla gannaaw bu le seen bu seen xeet lànk bi tëdd si naaj bi ñu ne duñ leen gëm ñoom xam nañ ne yàllaa leen yónni ñu jël xam-xam boobu delloo ko fa yàlla moo tax boo demee xool ca suratu yaasin bur yàlla ne yonentu bi ne sallallahu alayhi wa sallam ci aaya bi wadrib lahum mathalan asxaaba alqaryatin is jaaha al mursaluun id arsalna ilayhim ithnayni fa kaddabuuhuma fa azzazna bisaalisin fa qaaluu inna ilaykum mursaluun qaaluu maa antum illaa basharun mithluna wama anzala arrahmanu min cheyin in antum illa takdibuun qaalu rabbuna yaclamu inna ilaykum la mursaluun wama calayna illa albalaagu lmubiin sadaqa allahu alazim mbokk yi yenn bur yàlla yokku leen yërmande yenn yërmande yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma yàlla yónni ci xeet wi mu jox ko téere ba nga xamante ne fa la jullit bi wala refeerewu fa la war a sukkandiku fa war a tënk boppam constitution bu mel ni téere alquran jullit ñi war si war a mën a jëfandikoo ngoy si di si taataane seeni doxalinu àddina ak seen doxalinu alaaxira yàlla mu ngi ni di wax ak yonent bi sa yonent yi nga xamante ne yàllaa leen yónn ci seeni xeet ñu weddi leen ñu lànk ba tëdd si naaj ba ñu ne leen ñun gëmuñu leen ne yàlla leen yónni ñu jël xam-xam ba ñu xam ne yàlla leen yónni te ñoom xam nañ ne ndawalu yàlla lañu yàlla mooy kelle ni yónni ñu jël xam-xam woowu ñu nekkee ci seen askan delloo ko fa yàlla moo tax yàlla ne nanga tëggal waa Makka nang leen melal andil leen cax ba toll ni wala nga andil leen melokaan waa gox wa nga xamante ni man yàlla maa leen yónnee ñaari yonenti ci benn waxtu ci benn moment wadrib lahum jox leen cax ba toll ni masalan ashaabal qaryatin melokaanu gox wi nga xamante ni is jaa ahal mursaluun keroog bal seen yonent yi dikkee id arsalna ilayhim uthnayni fa kaddabuhuma fàttalekul keroog man yàlla ba ma leen yónnee ñaari yonenti waaw ñaari yonenti la yàlla yónnee ndoor ci waa gox woowu waaye waa gox boobu nu ñu réagir par rapport ak ñaari yonent yaleen yàlla yónni mooy ne fa kaddabuhuma dañoo weddi ñaari yonent yooyu yàlla ne gannaaw bu ñu weddee ñaari yonent yooyu yemu ma rek ma daldi leen bàyyee ñaari yonent yi waaye fa azzazna bi thaalisin ma daldi dooleel ñaari yonent yooyu kenn mu doon ki leen ñetteel waaw dafa yónni ñaari yónnente à ci benn yoon ci ab gox waa gox bi lank bi tëdd si naaj bi ñu ne duñu gëm ñaari yónnente yooyu yàlla ne fa azazna bi saalisin ma daal di dolleel ñaari yónnente yooyu ñetteel ma daal di ñetteel dooleel leen ngir waa gox bi gëm leen ne ñu ñii ay yonenti yàlla lañu allahu akbar yàlla yónni ñaari yonenti à la nekk ci penku gox bi mu di woote fa yàlla kiy nekk ci coow jant bi moom it mu di woote fa yàlla te seen woote wuutewuñu benn la waa gox bi lànk bi tëdd si naaj bi ñu ne leen fa kaddabu huma ñu weddi ñaari yonenti yooyu ñu ne leen waxu leen fi dara du ngeen tus waaw kenn du leen gëm waaw yàlla ne fa azzazna bi saalisin ma daldi dollal ñaari yonent yooyu ñetteel ma ñetteel leen ab yonent mu ñëw bokk ci ñoom muy trois muy ñetti yonent buñ ko doon misaal sañ nañoo wax ne kii de daan nekkoon ci penku kii nekk sow jant ñuy woote waa gox bi jëmale leen ci wéetal yàlla ngir ñu gëm yàlla ñu bañ koo bokkaaleeg leen ñu bañ koo bokkaaleeg dara waa gox bi ne leen fa kaddabuhuma ñun dañ leen wedd ci la ñuy woo ci li ñuy woo gëmuñu ko weddi nañ leen bu leen sonal seen bopp yàlla ne fa azazna bi saalisin ma daldi dollil ñaari yonent yooyu ñetteelu yonent mu ñëw moom it mu nekk ci digg dëkk bi nag comme kii daa nekk penku kii nekk sow jent ma daldi yónnee kenn kooku ñëw nekk ci digg dëkk bi xanaa kon léegi gaay yi ñoom ña nekk penku am nañ seen yënant ña nekk sow jent am nañ seen yonent ña nekk ci digg dëkk bi tamit am nañu yënant ba leen di waar te ñoom miti ñëpp ci benn kàddu la ñuy woote mooy ñu jaamu yàlla bañ koo bokk alek len ñu wiital yàlla ci nguuram waaye nag waa gox bi tontu leen ñu ne leen yéen na ngeen nekk ñun mbir bi daf ñoo bëgg a soof ñu ne leen fa qaalu inna ilaykum mursaluun ñun de ah bu ngeen ñu weddee de ñun ay yonanti lañu te yàlla ñu yónni waaw moo tax mu ne fa qaalu yonent yi ñu ne leen ñu ne seen xeet ne leen inna ñun de ilaykum ci yéen mursaluun dañoo yónni dong waaw ay yonenti dong lañ duñ leen forcé ci leen duñ leen xeex duñ leen rey duñ leen jàmb duñ leen jànni ñun daal ay yonent ba yàlla yónni si xeet wi lañu waaw léegi nag discussion bi mu daldi di jebbi waaw débat yi ci penc bi ci grand place yi ñu naan waaw ñii sax est-ce que dëgg-dëgg ñii ay yonent lañ comme dañoo weddi yonent yi yonent ne leen weddi bi mënuñu koo dàq mënuñu koo accepter waaye ñun lu ñu xam te ñu nekkee ko daal ñun ay yonent lañu yàlla ñu yónni ci yéen léegi xeet bi ne leen xeet bi ñu ne antum illa basharun mithluna wa ma anzala arrahmanu min cheyin in antum illa takdibuun ñu ne xeet bi ne seen yonent yi ne leen qaalu ñu ne leen maa antum illa basharun misluna yéen du ngeen dara ludul nit ni ñun yéen du ngeen dara du ngeen lenn lu dul nit ni ñun waaw moo tax ngay dégg léegi ci yi nit ñi ci termo yu bees ya niti ordinaire yi di wax tojoo fi waxoo fi dara doo dara waaw slogan bi léegi lañ ko dégg mais ay nitu kàccoor ñoo ko doon wax seen nitu yàlla yi aw xeet ñoo ko doon wax seeni yënant xoolal ñii lu ñu wax seen yonent ak a niroo suñu tere mu ren ak a niroo suñu tere mu jamono ji tey yéefari ña weddi yàlla ñi lañu waxoon seen yonent yi ci aaya bi tey nit ñi slogan boobu la jël di ko véhiculer di ko di di ko wax ci pénc bi law kaanu yaalamun ak a neexoon ñu xam ana ñan ñoo wax lii ak ana ñan lañ ko waxoon yéefar yu njëkk yi ñoo waxoon seen yonente xaalu ñu ne leen maa antum yéen du ngeen dara xaalu ñu ne leen maa antum yéen du ngeen tus xaalu xeet bi ne seen yonente ne maa antum yéen du ngeen dara be dara booloo je illaa basharun na lu dut ay nit ni ñun yéen du ngeen jinne du ngeen malaaka du ngeen lenn ci mbindaafoon lu dul nit ni ñun ba tax na wa ma anzala arrahmaanu min shay'in yàlla du wàccee kenn ku dul ci yéen yàlla buy yónni sax dina yónni keneen dina yónni ñeneen yàlla buy tànn yonent dina tànn leneen lu wuute ki moo tax ñu ne seeni yonent yi ne wa ma anzala arrahmaan yàlla wàcceewul dara lu dul min shay'in ci lenn lu dul yéen yéen yàlla dina leen li ñu waaye topp leen fële waaye yéen amu leen dara li ngeen di wax nga naan ngeen na ñu yàlla ñu yónni fële ñu yàlla di yónni ngeen nekk ay nit ni ñun te moo ne dañoo fàtte ni ñoom ay nit lañ moo tax yàlla yónnee leen nit ni ñoom waaye gis nga képp ku yàlla fatt sa xel fatt sa nopp fatt sa xol ba war a gis dëgg ak leer seytaane moo lay ñëw gaaral la ay komanteer yu teera teer yoo xamante ne yow bi ko doon wax sax doo xam lu tax nga wax ko xoolal ñii lu ñu wax seen yonent xaalu ñu ne leen maa antum illaa basharun mithluna yéen du ngeen dara du ngeen lenn lu dut nit ni ñun te tamit bu dee yàlla dem na bay yónni yonent du yónni yéen du leen yónni yéen waaw ay nit ngeen moo tax ñu ne leen wama anzala rahmaanu min shay'in yàlla wàcceewul di yónni kenn kuluti yéen waaye li fi nekk mooy in antum illa takdibuun li fi nekk te mu doon lu wér te wóor yéen daal da ngeen di wax seen coobare ba kenn waaw la yéefaree wax ñii nag ah ñun dañ leen di ormal ba tax na duñ ko waxee nii waaye nag yéefari yéefar yooyu wax seen yonent mooy dañ leen ne yéen daal da ngeen di wax ci seen coobare bakken amu leen fi dara lu ngeen wax li nga xamante ne dafa méngoog li am yonent yooyu be léegi ñu ngi wax ak seen xeet wax bu teey te dagan wax bu neex a dégg gis nga booy dem ba di débat ak nit boo amul argument day xuloo day coow mun naa génne ay baat yu ñaaw ci gémmiñam jëmmale ko ci yow ndax amul source la mu war a teg ci taabal amul adilla waadiha amul tegtal yu leer ya mu war a teg ci taabal amul dara lim la mun a convaincre léegi li fi des mooy mu jàndi la ay baat yi nga xamante ne dangay mer wala mu di la tegal loo xamante ne da ngay gis sa bopp waaye ndegem yow yaa ngi yore say argument yu bëri say argument yu leer nañ ni midi yaa ngi yore sa proof yu leer nañ saa yoo ko bàccee ci kaw taabul bi rek boo moytuwut mu wëlbati ko taabul bi disparaître ndax moom yorul dara xoolal yéefar lu ñuy wax seen yonent yi ba léegi seen yonenti yaa ngi ni toog ak dal di muñ xaste yañ leen di xas ak wax yu ñaaw yañ leen di wax wax ba tax na bu ñu waxee yonent yi ne leen yéen du ngeen dara lu dul nit ni ñun bu yàlla di yónni sax dina yónni ñeneen lu dul yéen waa yéen mii sax li ngeen di wax dara fondewul dara taxawul waaw dara taxawul li ngeen di wax ay waxu kasaw kasaw dong ngeen di wax bu dee jamonoy teel nii la ñuy tontoo yonent yooyu waaye yonent yooyu daal leen tontu ñu ne leen qaalu yonent yi tontu seen xeet ñu ne leen ne rabbuna naka suñu borom rabbuna naka suñu borom ma ñu bind mu ñu yónni ah yaalamu xam na de xam na kat ne inna naka ñun ilaykum ci yin la mursaluun lañu suñu boroom xam na ci xam-xamam bu leer nañ ni ñun de yonent ba ñu yàlla yónni ci yéen ñëw nañu wax nañ leen dégg ngeen xam ngeen weddi ngeen léegi lu fi des mooy deuxième chance lañ leen bëgg a jox de xam nga mooy la wa ma alayna illa al balaagul mubiin lañu war ñun mooy leeral bu biir ñu leeral leen ku ñu yónni ne mooy yàlla ñu leeral leen la tax mu yónni ñu mooy ñu jëlee leen ci lënd maayu bokkaale yàlla yóbbu leen ci wéetaayu leeraayu yàlla bokk na ci la tax mu yónni ñu ngir ñu mën a communiquer ak yéen bu yàlla yónne woon malaaka affaire bi du sotti ndax du ngeen ko mën a xool ak melokaanam bu yàlla yónnee jinne du sotti ndax jinne yi dañoo bari affaireu caay-caay kon pour affaire bi mën a équilibre mu war a mën a nekk lu nit ñu war a mën a accepter mu war a nekk la nit mën a nangu il faut mu nekk nit ak nit ñun nit lañu ni yéen ñu ngeen bindoo lañu bindoo lu ngeen nekkee lañu nekkee waaye dafa fekk ne rekk yalla ñu yónni ngir ñu ñu leeralal leen bokkaale yàlla ak lëndëmaay la bokkaale yàlla ab lëndëmaay la lëndëmaay boo xamante ne ku ci deewaale yàlla du la yërëm ba tax na mu yónni ñu ngir ñu jëlee leen li nuxurijakum min adulumaati ila nuur ngir ñu jëlee leen ci ay lëndemaayu bokkaale yàlla yóbbu leen ci leeraayu wittal yàlla su ko defee loolu mooy suñu mission ñëw nañu wax nañ leen ko ngeen ni ñu weddi ngeen ñu ci lu ñu yàlla yónni yàlla wàcce ñetteelu yonent bi mu ñëw bokk ci ñun mu ñu doon ñett ngeen ni ñu ba léegi weddi ngeen lañ leen andil te ñu jëlee ko fa yàlla ñu nit ñu ne leen ñun ay yonent lañ ay ndaw lañu yàlla ñi yónni ci yéen ngeen ne ñu du ngeen dara du ngeen tus toju leen fen waaw du ngeen lenn lu dut nit ni ñun bu dee yàlla dem na bay yónnee buy yónni tamit dina yónni ñeneen ñu dul ci yéen waaye yéen wii sax li ngeen di wax ni yéen a ngi ko teg seen coobare bakken dara taxawul ci dara du ci dégg ñu nit ñu tontu leen ne leen yàlla mi ñu yónni yàlla mi xam ne moo ñu yónni yàlla mi xam lu tax mu yónni ñu yàlla mu xam na ne kat ne ñun yónni bu ñu yónni ci yéen matal nañ ko te wax nañ leen ko tamit nekk nañu ko yéen kenn bañu te accomplir mission bi mission bi def nañ ci suñu kéemtalaay kattan partagé nañu ko yéen la yàlla yónni waaye ngeen tëdd lànk bi tëdd ci naaj bi ngeen bañ a wuyu ca liñ leen di woo waaye deuxième chance bi fi des mooy wa ma alayna illa al balaagul dara waruñu lu ñu leeral leen la nga xamante ne mooy lu leer nañ te def nañ ci suñu kéemtalaay kattan amul dara lu fi nekk lu leeral nañ leen ko kon samaan wa taa amoo fi war a nekk wala wa qaalu sami'na wa asayna dégg nañu dinañ ko topp moo fi war a nekk wala dégg nañ ñoo lànk duñ ko topp moo tax aaya bi moo ngi ci suratu yaasin wadrib laxum masalan ashaabal qaryatin is jaaha al mursaluun id arsalna ilayhim ithnayn fa kaddabuuhuma fa azzazna bi thaalisin fa qaaluu inna ilaykum mursaluun qaaluu maa antum illaa basharun mithluna wa maa anzala arrahmaanu min cheyin in antum illaa takdibuun qaaluu rabbunaa yaclamu inna ilaykum la mursaluun wa maa calaynaa illa albalaagul mubiin sadaqa allahu alazim kon lañu tax a jikkati aaya bi mooy qaaluu rabbunaa yaclamu inna ilaykum la mursaluun kon yonent yooyu jël nañu xam-xam ba yàlla xam ne moo leen yónni ñu delloo ko yàlla ndegem xeet ba leen yàlla yónni xeet woowu xamuñu moo tax ñu weddi leen moo tax ñu wax leen kàddu yu ñagas yooyu ba tax na ñoomit ñu ne seen xeet yàlla xam na ne kat ñun de ay ndawam lañu te moo ñu yónni ci yéen subhaanahu wa taala kon nga gis ne xam-xam toujours xattaa yonent yi bu ñu àggee fenn dañoo jël dañuy faral di jël xam-xam delloo ko ci xam-xamu yàlla kon xam-xam da di jumtuwaay boo xamante ne kenn waru koo doyadal kenn waru koo doyadal ci lenn ku ko yàlla jox tamit kenn waruta doyadal jëmm jooju fañ koy jàngale walla fañ koy disperser fañ koy tasaaroo amul kenn ku war a doyadal béréb boobu kon nañ leen jox xam-xam gëdd nañ leen jox xam-xam dayo ñàkk xam yonent yooyu moo tax xeet waleen yàlla yónni ñu lànk ba a topp yonent yooyu leen xam moo tax ñu dugg ci giraawaale bu toll ni su ko defee képp ku bëgg xam suite aaya bi boo xoolee lan nekk ci suufu aaya bi dinga nga comprendre aaya bi fu mu mujj la nga xamante ne ñoom la yàlla yónni ci seen gox boobu yàlla na yonentu bi ne waxal waa Makka waxal waa kufaaru Makka melokaanu gox bi nga xamante ne man yàlla maa leen yónnee ñaari yonent ci benn waxtu ñu weddi leen ma dooleel ñaari yonent yooyu ñetteel su ko defee ñu dem ba àgg ak seen xeet ne yàlla de xam na ne ñun ay ndaw lañu te moo ñu yónni ci yéen kon xam-xam dayo bii la am ci pénc lii la xam-xam am comme dayo ci askan yal na ñu yàlla may xam-xam ba ñuy war a mën a jox nit ñi ñu ràññetle diggante leer ak lëndëm ñu xàmmee diggante dëgg ak neen amin yaa rabbal alamin mbokk yi waxtaan wi jeexul dañoo yëg ci fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñay tas xabaar ci nasaraan ñu ngi ñu taxaw ñu fas yéene leen jébbal béréb bi saa ilina mawla jalla wa ala an yarzuqana ilman naafian yal nañu yàlla may xam-xam bu ñuy njëriñ amin ya rabbal alamin allahumma aati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'man nasir allahumma aati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'man nasir allahumma ya rabbi aminna fi awtanina waslih allahumma a'immatana wa ulata umurina